asalaamaaleykum mbokki jullit yi su ngeen déggee kàddu gu daw yaram googu muy labbayka allahumma sharika labbayka nga xam ne xel yépp day dem ci dëkk bu tedd bu muy màkkatal mukarram diggante màkka ak Medina looloo waral ak gi jub si mooy association réseau national des femmes de jàppo jóg ci niñ ko yàgg a defalee daan gunge pèlerins yi daan gunge ujaaj yi daan àndal ak ñoom ci màkk ak Medina fas yéene ubbi li nga xamante ni mooy inscription yi di woo jullit yépp ñu ñëw kañ nañ ko door fi nga xamante ni mooy seen siège bi nga xamante ni moo nekk ci Dixième fille qui siège au foyer des femmes, c'est le président qui a remonté le mois à la dame d'Anne Moubarmi, fonctionné. àndandoog ñépp ngir ñu dem màkkatal mu karama diggante màkk ak Medina seen réputation bu baax seen dalwaay yu am solo seen hôtel yu luxe yi transport bi nga xamante ni lépp ci yoon lañ ko teg jege loolu dalwaay yi diggante ka Kaaba ga ak fi nga xamante ni mooy jàkkay Seydina Muhammad looloo tax ñépp fas yéene biir jëm fa nga xam ne mooy inaakwaa jàppoo kon nag jëlal ma numéro yi yow bi bëgg a ziyaare gi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bul xeer bul yeex bul yeexantalu àggal foofa wala nga jëlee ci numéro yi muy 77 533 82 35 wala 77 657 90 00 waa jàppoo xarañ lool ci mbirum aj xarañ lool ci pèlerinage ak umra ñoo leen woo ci numéro yooyu ci seen jiital président Dame Diagne ubbi nañ ndorte deew leen fi nga xamante ne mooy siège ba nekk ci dixième foyer des femmes woo nañ ñëpp Makkatal Mukarram